naaru darmanko yi wuy si nan bàyyi àll si la ci ab woote ñoom ndaw yile takku nañ ba dëgër fas yéene dooleel président Macky Sall ci wetu bàyyi àll si la ñuy xamle ne àll si la doy na leen ni ab taxawaayam ci parti bii di APR lépp rafet na sëriñ Moustapha Amar ñu gën ko xam ci borom Thiès muy xamle ne sumb bu ñu mel rëy na lool waaye ñoom naari darmanko yi ñu benn lan ta xam li ñu bëgg borom Thiès moo yëkkati kàddu yu ñu mel. voilà li ñuy wax man Serigne Moustapha Amar euh, ñu gën maa xam ci ci ci borom Thiès dama jóge Thiès nag uniquement pour ñëw vraiment soutenir Serigne Mbacké Amar Gànnaar parce que moom mooy xaritu monsieur Alla Sylla man nag Thiès mooy sama base fa laay voté fa laay defee malgré que samay mbokk ngi nii mooy ñi ma leen présenté sànq malgré que ay taalibé ngi fi waaye ànd nañu ak jeune dërmanko yi pour jàppale monsieur Alla la li tax ñu koy jàppale nag Alla Sylla dañoo gis euh, li nga xamante ne mu ngi koy def ci ci ci Touba li nga xamante ne mu ngi koy jàppale ndaw ñi di ko jàppale jigéen ñi fu waay wootee ñu ngi koy def non seulement waxuma la sax euh, euh, leneen loo xamante ne xëy na day génne ci président waaye xaalisu boppam lay jël xaalisu boppam lay jël nag di ko jàppale kon kooku danuy woo monsieur makki sàll mu gën koo jàppale ndax bu amoon ci moom fukk wala mu am ci moom lu bari kon yaakaar naa euh, Touba dina fi am ndam monsieur Alla Sylla day jël xaalisam di ko def ci ci ci ci ndaw ñi di ko def ci jigéen ñi loolu kooku wax dëgg yàlla war nañ koo mën a jàppale bu baax a baax a baax a baax looloo tax nag tey ñu ñëw war koo mën a jàppale looloo tax ma jógee Thiès ñëw ànd ak sëñ Mbacke Amar Gandaan mi nga xam ne xaritam la ñu jàppale monsieur Alla la ngir mu amaat euh, ndam ñu jàppale président Macky Sall soxna yi fi nekk nag ma présenté leen ko léegi kenn ku ci ne am nga base boo xamante ni fa nga nekk lii nag doog doogu commencement la waaye soxla nan Alla Sylla dafa teew fa Pathé Amar doomi Serigne Misbah Amar ji di xam xamle ne dogu nañ ci fas yéene jàppale Baye Alla Sylla ndax kat moom ku yàgg jàppale askan wi la te bilan Macky Sall ak liggéeyub Alla Sylla ci dëkk bu sell bii di Touba falaat na président Macky Sall kon daal man nag dama lay wax ni particulièrement man en tant que di doomu seriñ sëriñ Misba Amar maa ngi koy soutenir ak ñi nekk sama ginnaaw ngir sëñ Mbàkke Amar bi nga xam ne moo booleeg moom te it dina ko jàppale bu baax ba mu xam ne jàppale nañ ko mais nag na xam ni askanu Darmanko dafa am leen yàlla defal fii senegal mooy dëkk njëkkuñoo dëkk ci réew mi mais bi ñu ñëwee am nañ fi cër bu yaatu parce que ab dëkk bu fekkente ne doxoon dem nga fa ñëw dem ba am fa plus de 60 villages yu nga xam ne ñëpp ay naar ñoo fa dëkk ay naari Kajoor famille la bu nga xam ne réew mi war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax te président la république gis naa ne mi ngi leen di bàyyi xel beneen bi mooy ah, famille boo ci duggee fekk Serigne Touba nga mën a compter lu mat juróom-ñaari nit Serigne Touba seexal leen te kenn ku ñu nekk mbooloo topp sa ginnaaw ñooñu am na lu ñu doon ci Sénégal war nañ leen bàyyi xel na xam ne daal ñi ngi koy bàyyi xel ñi ngi koy jàppale ñi ngi ñaan yàlla président de la république am ci élection yi baax te danañ ko jàppale ci wax ak ci jëf ñu ngi waxit suñu kilifa yi ñu ñaanal ko bu baax ndax xam amuñu lu suñu kilifa yi. bi mu ñëwee wax ma man suñu gànnaar de mun naa mun a àll ku koy jàppale lan ndax xam nañ ci moom fulla ak fayda heure bu jógee rek ma ci Macky moo a jóg su waxee tamit Macky ko tax wax kon moom noo xam ci moom fulla ak fayda te ñun du nit ñoo xam ne ñu ñàkk fayda lan wala ñu jóg ci luñ bëggut a jóg ndax ñun ku nekk ñëw na woo si ñu nangu noo ànd ak moom ñu nag fas na ni yéene teg ko laxasaayu ànd ak moom mbooleem kenn ku ne mbo ña nga yor ak ña nga jiital ñëpp danañ boole takkaayu ànd ak moom topp ci ginnaawam ànd ak suñ gànnaar ñoom ànd ak àll si la. Euh, lii la gënoon a bëgg sama diggante ak moom parce que nit ki booy ànd ak moom rek day yoon nga firndeel nga firndeel ko wan ko ay e, critères yu leer ba mu xam ne yow moom nga àndal lii la ji nag mooy xam bu baax Baye Alla niwam ci Touba wax naa ko. maître yum bi ma ko seetee palais ñu toog waxtaan muy directeur wu cabinet Macky Sall nee naa ko bu ngeen amoon ñaar dong yu mel ni e, Baye Alla Sylla la e, waxuma la mais Sénégal e, élection yuñ mas a yuñ fi mas a am rek du ngeen da ngeen di gagné da ngeen di battre rek élection yi surtout Touba ni ngeen koy perte dutu leen ko per parce que xam naa ni Baye Alla toogul di xaar président lépp lu muy def du ko def uniquement ngir bëgg dëkk bi sagal waa dëkk bi parce que euh, bu ne nit baax na rek dangay ngay laaj ndax mbokk yaa ko wax mais man mi dund Baye Alla ànd ak moom ay miraaran ay yooni yoon xam naa li nga xamante ni bii moom la Baye Alla di peese ci dëkk bi euh, lii nag bari na ñoo xamante ni bi bëggoon nañ ko muy ñi fi nekkal euh, APR ak yeneen parti opposant yëpp bëggoon nañ Nari dar manko yi defal len point de presse parce que kenn ku ne xamna na li nek ci point de presse nga tok jaay sa image wax ni diw la andal loolu ku fidelul do ko def ñun nag dañu fidel. mo len koy wax bu baaxa baax dañu fidel parce que xamna ni baale mi ma andal dafa fidel ñom ñi and ak Baye Alla le rafet lu ñu mel dalal len jam tay xam la ne victoire Macky Sall moy li len yitel te bay Alla si le lamu ko jaral bari na lol tay xam la ne victoire Macky Sall moom ci biir Touba sotti na ba pare. sëriñ bi ñoo ngi lay xamal ne la li nga wax dégg nañ ko déglu nañ ko te li nga xam ci sëñ àll rek moom nga seere ci moom la ngeen séq moom nga seere ci moom ndax lépp lu mu lay wax rek fa mu toog yàlla mooy àggale waaye loola mooy li na ci moom. seen relation ak Baye la àgg fenn fi. ñu jublu ci élection yi ñu jublu ak enjeu bi nga xam ne am na ko nga dajale sa ay mbokk muy ñoo xam ne ñëpp bëgg a bokk ak ñoom muy da naaru darmanko yi comme ni nga ko waxee di ay kilifa yoo xam ne ca cosaan ba léegi dañ leen bàyyi xel donc kon loolu ñun dañ ci am mbégte donc li ko itteel rek mooy lu jëmale kanam Touba nit la koo xam ne yéen a jëm am ci doomu aadama yi xam na ne li muy am ci poosu boppam munu ko ko munu munu ko satisfaire donc muy dugg ci politique pour man ci jaare pour mën a dimbale nit ñi comme ni mu ko bëggee loolu rek moo ko ci dugal te moo ko ci bàyyi donc képp koo xam ne aussi dem nga ba xam ko xam doxalinoo ñëw ànd ceeg moom dañ ciy sawar rek te di la encourager di la wax ne ba la moom nit la koo xam ne yaakaar du tasee ci moom ñoom naari darmanko yi takku nañ ba dëgër ngir falaat président Macky Sall ci atum 2019 ñoom askanu darmanko yi jóge woon fu ne ci biir Touba fas yéene dooleel Baye Alla Sylla ndax ka jëfam ci biir Touba ak lu ñu mel